bu ñu waxee consommer local képp kuy yëngu ci wàllu koom-koom soxal na la. su ñuy wax consommer local nag bàyyiwuñu kenn producteur ba la tàmbalee jëm ba ca ka nga xamante ne mooy togg ni ñuy def pour que lépp lu ñu liggéeyee lépp lu ñu béyee senegal en tout cas ñu mën ko jëfandikoo fii. foog naa at yi weesu gis ngeen ni ceeb mbéy ceeb mbéy euh, ceeb bi ñu béyee Sénégal meloon ak tey niñ ko soxlaa ci ci ci ci marché bi. moo tax euh, journée bi nga xamante ne moom lañ jagleel ADPME ñun dañ ci en tout cas toftal benn pàcc boo xamante ne bu pàcc bu am njëriñ la ci doxalinu entreprise ñu koy woowee digital. moo waral thème bii ñu tànn euh, di jëfandikoo jumtuwaayu xarala ngir dooleel jongante bi am solo lool. la euh, jumtukaay yu xarala yu bees yi en tout cas mën nañ jàppale suñu entreprise yi ndax ñu gën a mën a takku ci li ñuy liggéey gën a mën a coppar ni la nga xamante ne moom la ñuy liggéeyee mais surtout gën a mën a téye seen seen seen entreprise. tey pour tenir comptabilité digitale moom la ñuy utiliser tey pour mën a jot ci yenn marché yi. Euh, digital bi xam nañ ne teew na lu bëri tey mën nga toog sa bureau wala nga toog sa kër def sa commande ñu livrer la ko donc loolu moo nekkoon sababu journée bi ñu ànd ci acteurs yoo xamante ne nag ay acteurs yi ñu gungee la UNACOIS FENAF euh, plateforme femme développement et solidarité donc ñooñu ñëpp ñoo fi teew ak ñun ndax ñu mën a gën a seddoo ak ña nga xamante ne mooy entreprise yi en tout cas expérience yi ñu dund ak ñoom mais surtout retenir que ne tey euh, jumtukaayu xarala yi daf ñuy permettre ñu mën a yombal suñu dund dund de manière simple mais surtout gën a mën a yombal entreprise yi la nga xamante ne euh, noonu la ñu war a taxawee loolu moo nekkoon sababu ndaje bi. waaye nag foofu liggéey bi tegu ci yoon. digitalisation bi baax na mais ci biir digitalisation aussi dafa am une vente en ligne et une vente en masse mais pouvoir atteindre la grande masse maintenant excusez-moi je suis en train de parler français pour ñu jot le maximum. de personnes pour jaay leen ay yére il faut nga am maîtriser lu ñuy wax norme internationale nee naa leen que norme internationale mooy nga am xaalis dem ponti wala feneen jënd fa sa costume bu rafet sol ko mu rafet nga nga génn ñu laaj la nga ne ah kii prêt à porter la mais li nekk ci ginnaaw prêt à boobu mooy yow xamoo ku ko ñëw xamoo ku ko dagg xamoo ku ko liggéey xamoo sax kan moo ko jëlee ci dëkk boobu indi ko fii te sol nga ko mu jaar yoon mais ki def loolu fan la jaar en fait booy définir norme internationale loolu mooy norme internationale mais nga mun a toog fa nga toog di jaay àddina bi yëpp ci ay taille yoo xam ni lay seen normé nga xam ni ku soxla x jël x dem yoonam ku soxla euh, beneen taille aussi XL nga soxla jël ko dem sa donc loolu mooy un peu norme internationale donc piège may éviter loo un peu mooy nga nekk sa koñ rek di di jël ay produits yoo xam ni normé wuñ ko boo ko jaayee tey bu jàllul bu subaa ko jaayaat dëgg la nag jumtuwaayu xarala yi mën nañoo réeral métier yu bare waaye dinañu sos yeneen yu bare